ñu duppee euh, fausse nouvelle maanaam joxe xibaar yu wérul ak information militaire bu ñu ne da ko joxe ca amu ci benn autorisation bu hiérarchie bi démb nag parquet bu tribunal bu grande instance hors classe bu ndakaaru wax na ne ubbi nañu ab enquête judiciaire boo xam ne jox nañu ko brigade prévôtale bu gendarmerie nationale ñaari takk der yooyu nekkoon ci seen i poste ca inspection générale d'état ak direction des renseignements militaires kon nag samedi ba tey kenn gisu leen te téléphone ña nga ko localisé ci bu mujj ca fa nga xam ne moom mooy Cap mu nga kon euh, Mansour ku ci nekk ak thèse bi ngay bi ngay avancé waaye ñu bari jàpp nañu ni que euh, ñoom ñoo euh, sabab li ni mel. waaw tey boo xoolee journal Le Quotidien xaw na junj lu mel noonu ci seen laale ak Pape Alé Niang préciser itam ku nekk fi nga doon liggéey mais man li ma mën a jàpp daal ba léegi mooy ubbi nañu ci enquête maa ngi xaar ba enquête bi egg ci cëppaandaw ji parce que magum jëmm nag mënoo ko xàllal lu mu def. Euh, ak teyu bakkanam bu fekkee li ñu wax li ñu foog ñu ñoom lañ def muy seen tey bakkan xëy na ñoo xam ne tax ñu daw kon mais man gëmuguma loolu li ma gëm daal mooy li réalité nature bi joxe mooy gis nañu seen ay bagage ak seen ay téléphone gisuñ ñu leen mun nañu foog accident xëy na seet nañu leen ci géej gi ak yooyu man loolu lay jàppandeegum ba keroog may gis lu ko weddi dañu am lien ak affaire pap Alé Niang dara wóoruma ci kenn ki moo doon dawalal Nafi Ngom Keïta yor wàllu kaaraangeem loolu xam nañu ko fonction la dañ ko fa yóbbu woon mu koy dawalal est-ce que mun nañu am est-ce que pap Alé Niang situation dafa nekk crime bu ñu war a ngandal ba ay soldats war a disparaître ñu foog ni ñuy def euh, link boobu mm-hmm. no vraiment c'est précipité teel na trop ñu ngi def enquête nañ xaar ba enquête bi am lu mu wane quoi de gis-gis si mbir mi waaw euh, xam nga euh, ci code de la famille dañ lay wax ne un disparu mooy koo xamante ne absence am dafa am et lu jëm ci wàllu dundam nekk en danger. Mm-hmm. aujourd'hui li nga xam ne moom lañu gis ci ñaari takk der yi bu ñu sukkandikoo ci le procureur de la république mooy ñoom ñaar dañu disparaître. Mm-hmm. parce que loolu la ñuy wax et que moom mi ngi mené enquête bi xadi c'est une affaire euh, boo xam ne très sérieuse mm-hmm. bu ñu déggee ñu ne euh, ñaar ñoo xam ne euh, dañu nekk ay gendarme ba pare bokk ci renseignements généraux dañu disparaître comme ça quand même ñu taxaw ci mais aujourd'hui nga bëgg a li nga xam ne mooy la disparition ñaari takk der yooyu ci mbiru Pape Alé Niang ni ko Mansour waxee teel na d'abord et man ba jusqu'à présent le procureur de la République deful benn lien entre démb nga xam ne wax na ne dañu boo xam ne ngi door ñu door ko tijji dénk ko brigade prévôtale bu gendarmerie nationale deful benn lien boo xam ne am na ci li nga xam ne moom moo ñeel mbirum Pape Alé Niang maintenant ba tey euh, taskatu xibaar c'est vrai que dafay def enquête am euh, ñu wax ne ci journal Le Quotidien aussi bu Madiambal Diagne la jógee lan la ci wundu ak lan moo nekk ci ginnaaw on ne saurait peut-être le dire pour pour le moment mais luñ ci mën a xam mooy li ñuy ñaan mooy ñaar ñooñu euh, nañu mucc ak jàmm parce que loolu la ñuy ñaan ñu feeñ ak jàmm ñu poser wu également dañu am habitude di dem ci bërëb boobu di pêcher est-ce que dañu dem disparaître volontairement euh, pour peut-être daw ay représailles est-ce que est-ce que de beaucoup yoo xam ne xëy na bu ñu demee ba ci biir procureur mi taxaw ne ubbi nañu l'enquête dina taxawaat ci kanamu askan wi mm. leeral mbir mi mu nekk lu leer ci boppu sénégalais yi. mu ngoog Fatou Abdou ñu wax ci leneen mu ñeel euh, grève boutiquier détaillant yi ñaar fukkeelu fan ñeent ak ñaar fukkeelu fan juróom bu weeru novembre lay xibaar yi te diwaanu Thiès association bi ëmb boutiquier détaillant Sénégal yi ñoom la ñuy lu mooy ñi nga xamante ne euh, respecté wuñu dogal boobu leen njiitu réew mi jël ne njëgu dund bi dañu koy wàññi bu ñu sukkandikoo ba tey ci njiitu association bi ñoom euh, boutiquier détaillant yi ñu ngi jaay waaye gisuñu ci seen bopp te loolee bu wëyee dañ cee nax a gaañu ñu ondu ceeg moom Alioune Ba bi ñu génnee ci ndaje yi dañoo am mbégteel bu rëy a rëy rëy ndax la ñu waxtaanoo neen xam ne ñun mënuñoo liggéey ci anam yii ñu état bi bëgg force ñu liggéey lii ñu wax fii nag moo waral ñu ne dañuy dem grève dem grève moom mooy wane ne duñu ubbi suñu boutique jeudi ak vendredi bu soobee yàlla ci réew mi yépp ci Sénégal ñoo ngi wax mboolem boutiquiers fu ñu nekk ci Sénégal bu dee li nga nekk da ngaa bëgg mu continuer bu dee sa liggéey da ngaa bëgg mu ñoŋ ñoo ngi lay ñaan nga respecté grève moo dord boobu waaye responsabilité bi nar a am du kenn kudul état te incha allah produit yi duñ ko jaay ba état bi xoolaat li mu def. ci wàllu yi la ñuy des ba tey ndax association bi ëmb commerçant yeeg industrie yi lu Sénégal yi ñoom ànd nañu ci boobule doxalin directeur exécutif bi la mu xamle moo di groupe Sénégal wàññiwu ñu frais douane yeeg yu port yi comme ñoom nañu leen ko xelale woon ca waxtaan wa ñu ànd ceeg moom Omar si constitution assise mooy loolu ñuy def dañ ci di fàttali ne nekkuloon ay concertation ren nañ fixé ay prix dañoo waxoon nañ xool fi nga xam ne buñ fa a wàññeeku wàññi frais yi nga xam ne moom la ñu ci port mais amagu dara loo xam ne ni appliqué nañ dañoo waxoon ne pour prix wàññeeku faaw dañuy wàññi si port bi am na taxe yoo xam ne ñu ngi ko fay doon diwaan maa ba lañ boo jëlee lu mel ni ceeb dañoo waxoon ne yéen yi prix yi ngeen di jaayee seer na wàññi leen ko différentiel bi ñu delloo leen ko ñun état barki démb am na kenn koo xam ne dafa taxaw na dootul jaay ndax semaine bi passé jaay na ba pare différentiel bi ñu ko waroon a fay joxuñ ko ko mënatul continuer di jaay te comme état li mu ko waxoon defu ko moom day taxaw ku ci mënta jaay perte tëj sa boutique toog grève boobu la ñu ne mën nañu koo amal association bi ëmb consommateur u Sénégal yi ñoom ànduñu ca euh, Momar Ndaw di njiit la la mu xamle mooy ba ñuy fixé euh, njëkk yi euh, xool nañ ci bu baax a baax li nga xamante ni moom la grossiste yi demi grossiste yi ak détaillant yi di ñàkk muy sàkk kon ci ñoom ni bu ñu gisee ay lajjiteef yoo xamante ne am na ci ñu fësal xibaar bi ñu déglu ko ne moom la détaillants yi wax ne moom lañ bëgg a def jàpp nañ ne ñàkk orma kese la parce que tey jii boo xoolee li nga xam ne moom moo ci ne fanweeri fan nag lu ëpp fanweeri fan ñu ngi discuter ci li nga xam ne moom mooy wàññi yi xam ne war nañ ko def ñoom fekkee nañ réunion yëpp bi ñu def arrêté bi dañoo wax képp ku nekk ñaata nga war a jëndee ñaata nga war a jaayee ñoom boutiquiers détaillants yi ñaata lañ leen war a jaayee nga xam ne demi-grossiste moo leen koy jaayee wax nañ ko kon képp koo xam ne yow détaillant nga ñu bugg laa jaay njëg goo xam ne moo ëpp lii euh, arrêté bi wax mais jëlal sa téléphone nga woote service yi dinañ ñëw réglé loolu mais munoo wax ne non damay grève parce que dañ may jaay njëg goo xam ne moo gën a cher nga xam ne moom la teguñ ko ci yoon tegaanuñ ko ci yoon bu leen neexee nag nañ génne réew téeméeri at euh, bu boobaa nit ñi jënd feneen mu ngoog euh, grève bi fa la ñuy mujj Fatou Abdou ndax nee nañu ñu ngi jaay waaye à commerçants yi ak les boutiquiers aussi dafa am la les concertations sur la vie chère mm. am commission ceeb am commission diw am commission suukar entre autres yi nga xam ne wàññi nañu ko te ñoom ñëpp ña nga fa teewoon bi nga xamante ne teew nañu fa ñu jël décision wàññi li nga xam ne moom mooy njëgu dund bi aujourd'hui mënuñu buñ nee xaddi yokk nañu c'est-à-dire que duñu xaar li nga xam ne moom la ñu amoon stock mu jeex te pourtant dañu koy dundee bu yomb mais da ngay gis ne ci saa si boo duggee ci boutique boo ne suukar mu yokk ci juróom wala fukki dërëm boo nekkoo ceeb mu yokk juróom wala fukki aujourd'hui état jël décision jàppale ñi nga xamante ne moom mooy les ménages soulager leen un peu wàññi dund bi nga xam ne yegg na ci niveau boo xamante ne ku amul yërmande yow yaay toog ñu ne wàññi nañu nga bañ lànk ne doo wàññi c'est vrai que wax nañu ko am na ci yoo xamante ne kenn homologué wu ko am na ci yoo xamante ne compagnie ñoom ñoo ko bañ mais au fur et à mesure ñuy dem ak état di am ay waxtaan état di ci indi solution mais mënuñu buñ ne dañuy yokk ci saa si ñu yokk buñ ne dañuy wàññi ñu ne ñoom la ñu denc wala loo xamante ne dafa war a ñëw li ñu ko jëndee dafa cher duñu ko mën a wàññi il faut que l' état prenne ses avec ses commerçants nañu waxante dëgg ay sénégalais lañu ay consommateurs lañ ci suñu biir la ñu bokk mais li ñu bëgg a def nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem ci marché yi di jënd ak di jaay je pense que jàppalewuñu leen mais également bras de fer la ñu bëgg a def ak état à un moment aussi il faut que l' soit ferme par rapport di dem jusqu'au bout euh, Mansour dégg nañu directeur exécutif bu euh, association bu ëmb euh, commerçant yeeg yi nañu euh, frais yi nga xamante ne moom mooy yu douane yeeg yu port yi wàññiwuñu ko te xëy na lool lañ waroon njëkkee. wàññi nañ ko maa ko défier moom monsieur Cissé dafa wax ni dañuy yóbbu seeni ay facture ñu yéex leen a fay yéex a fay nag tractation xaalisu Sénégal moom noonu lay demee. mais l'essentiel boo yóbboo say facture en tant que grossiste daañu ko accepter daañu ko valider daañu leen jox seeni ay subventions. te loolu mu génne woon ci ndajem concertation bi amoon nga xam ni commerçant yi amoon nañu fi représentant détaillants yaay demi gros yi ak grossistes yi ñëpp a nga fa woon comme ni fa Momar Ndao nekke woon Momar Ndao lim wax muy dëgg ku tëj sa boutique ñu jëndi faneen heureusement sax ñoom amuñu benn association gis nga bii moom c'est la première fois xadi 2015 laa gëj laa gëj bokk benn xalaat ak Momar Ndao 2015 ba léegi pour wax la ni affaire du affaire par parlo affaire logique la ak objectivité ku nekk gëm li ngay wax pour défendre ko ci bi ci point bii laa mos a dugg du mooyu commerçant yi parce que dañ nañu jéem nañu jéem yow mi jaay détail am nga numéro vert pour kalaame demi gros bi bu fekkee demi grossiste bu fekkee jaay lu njëgg normal kooku am na numéro vert pour kalaame détaillant bi moom yow grossiste yow détaillant bi jox nañ la benn facture am nga droit ni ab Abdou grossiste moo a jaay